gii ñu nekkee duul duul gii ñu nekkee doomeram yi ah gone sëriñ si nga xam ne jànguñ jàngaanuñ ah ba jàng jote nangu nangu ñoo jàngi ñii ay maçon la ñii ay ay ay menuisier la ñoon démb ah ñii ay tëkkut sawar eh. ah doome xaj yi ku ci ku ci tëb rek bu bu nit dee rek xoolal kii dee barki de moo ñaay ñaanaloo ko fàtte fàtte fukki fukki la xalaas benn <laughs> naan ay question lii ko rey lee ko rey bu ñu xamoon dara duñu ñu wax ci leneen ñu wax ci élection yi jàll wala leneen leneen. Euh, jërëjëf mbokki MPROD TV mbokki tey dañoo fekk si borom xam boo xamante ni muy sëñ Sohaibou Mané tey ma bëgg koo laaj ci diggante saa Thiès ak Eumeu Sène kan mooy daan moom nag bokk na ci borom xam-xam yi gën a naqari deret ci réew mi waaye bokk na ci ñi fi ëpp xam-xam pourtant am na ñoo xamante ni boo waxee ñun la sëriñ bi li muy naqari naqari deret noonu la baaxee. danañ ko laaj ban xam-xam mooy tax mbër di am ndam dem ba ca géew ba ñu foqati ko ban problème la am ak yenn ci sëriñ si ba tax mu waxee ni mu waxee dinañ ci dugg ànd ci ay leeral mais laata loolu nañ ko bàyyi mu nuyoog askan wi ñu soog a waxtaanee li xew ci dëkk bi ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk improd ñu soog a waxtaanee li xew ci dëkk bi. salaatu wa salaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sant yàlla julli ci yonent bi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko fi te ànd ak wér ak mboolem kilifa tarix yi ni baaxoo di ko waxee saa su nekk. di leen gërëm di leen sant. Hmm. sëñ bi tey dama ñëw bu tàng fekk la ci xaal nga ne man am na jalaal yoon bu ma koy liggéey damay jàkkaarloog mbir yëpp di gis mbir yëpp sëñ bi euh, température bëgg naa ñu wàcce ko tuuti ñu am lu waxtaanee parce dafa am loo xamante ni man nanguwuma ko la ko dàq muy seetal nit ki gis ko sëñ sooy bi man combat bi ba tey daf ma lënt tey dangay dem ñu la Sa Thiès moo jekku suba nga dem ñu ne la Eumeu Sène moo jekku doo xam bala ngaa dugg foofu sëñ bi ban seet moo mën a gis nit ki am problème ak jafe ci fa mu dëkk wala nit am problème ak jafe ci ay këyitam wala nit ki am jafe ak problème ci wàllum alalam ban seet moo ci gën a gaaw laataa ñuy ñëw ci làmb. waaw ala kulli ci loolu Ramli amul dara lu ko mën ci lool ci kaw bu ma mënee. man léegi rek léegi nit woo na ma démb am lu may seetloo ma xaw a occupé tey mu woo ma ba ma woowee amul dara lu ma ko wax deñ man bu ma leex benn benn la wax benn benn wax farata jóge fa. li ma leex doo ko dindi. ci seet ci seet. barki Demba Ndiaye sama benn client nekk na ci France am problème wu wax ma ko ba ma ko waxee dama ne ko bàyyi lu ñu xool ko. bañ ko xoolee. lañ ca gis dama gis ñaari nit ñu koy dimbale wallaahi wal quran barki seexul xaddim ma ne ko am na ñaari nit yu lay dimbale ci lii dañ la dimbale affaire bi jàll benn abbe la mujj wax ne moo ko dimbale fayal ko ñetti weer yaa ngi dégg benn waa ji fayal ko ci koo xam ne moo ko jëloon garanti mm-hmm. ñu laal ci kontam kooku di ko fayal mu mm-hmm. fayal ko te ay matul ñaari fan kii ma wax sànq dama ne ko li ma la wax ndax li ma la dara tekkee gu la ñëw wala déet mu ne ma dara laju mm-hmm. ma ne ko sa feebar bi lii ak lii moo la arrivé nii la demee def na nangami at mu ne ma dara dañu ci. kon li nit mën ak li muy làmbatu bokkut. tey jii boo gisee ma maanaam mbiru élection amul kenn ku ci am sañ-sañ di ci waxee nii ma ci waxee fii ci senegal damay mën a yëkkati sama loxo ca kaw. mboolem sëriñ ci jox barki dem moo jaay am na benn sëriñ doomi xaj ju ma dégg muy wax naan ñëpp a fen bu fenee na fen fenam xam nga ko seen émission bi la ko waxee bu fenee duul ci ay duulam yu rëy na ko yemale foofu waaye du man barki dem moo jaay dégg nga ko fii. benn sëriñ mi génn def sorti waxoon ne jomaay euh, du laal dara. jàll sëriñ jàll feneen jàll. ah dégg nga wax ji man bokk maag ñooñu damay wax ne jàng weesut lépp loo xam ne nit bëgg na ko bu ci sàkkoo lim ci war a sàkku dox ci nam ci war a doxee am ci sàkku tefam. suñ tuwaa ne wa man xaraxal baaba wala ji wala ji képp ku taxaw ci bunt di fëgg taw bàyyi bu yàggee ñu ubbi la nga dugg dégg nga wax ji. kon na nit ñi dem jàngi jàngi weesuwut koo xam ne nag sa askan wala sa baay newuloon sëriñ xamuñu woon mbiru sëriñ nga tëdd daan jaayi fële bëgg ci xëy dugg mënta sotti. doomi maçon demal nga maçon ji boo ci bëggee am réussir. arab Mauritanie ñu wax ne al euh, amalul di mubaarakun jëfi waajur la ñu barkeel la bu ci doom nekkee rek mu am njëriñ gis nga Waly Seck ni ma duggee ci way réussir ci bàyyi ma ca newoon loolu bu mu bett kenn. Balla Gaye nii mu duggee ci bëre réussir ci bàyyi ma ca newoon bu mu bett kenn kon buñ fontoon nit ñi. nañ bàyyi seen caaxaan yi ñu nekkee maanaam bu événement yi jotee rek ñu ci profité naan ay diw lii ko dal ak lee ko dal. kon Gaston ba mu feebaree la ko daloon nañ ko wax. wala buñ ko mënee saafara ñu saafara ko. Euh, dafa am lu ma jaaxal muy dama seetlu ne sarax bokk na ci seen mbir. tey gis naa fi ñebe gis naa fi goro euh, sarax yi lan lay def ci nit ki parce que gis naa ne ñebe li nga koy utiliser ci say mbir bëri na trop. waaw sarax ci kaw nga xam ko. boo xamee bunt yi ngay jaar man ñaanal naa ñaanalu ma ko sax. benn xale bu ñuy wax Mamadou Lamine Diouf mu ngi dégg li may wax ma géej doy na ma seere ca Liberté na fi problème. certificat national de français mu waroon génn ñetti at ma koy toppatoo mënut a mu jaar fa ñu nax ko façon nax bu ne ba mu ci man wax ma ko. dama ko faaw dama koy xool ba xoolee la ma ko se la ma ko génnloo ci sarax. matul ñetti téeméer. lii may wax ñu ngi may dégg billaahi wallaahi taalay matul ñetti téeméer jour boobu maa ngi dem bisu xasida boobu ñuy def ca Pikine. waaw Fala ma wooyee ne ma dama la soxla. Mm-hmm. ma ñëw ma ne ko loo may doyee mu ne ma la ma waxoon mu jënd jàpp kii bee ngi nii set génne ko ci enveloppe bu mag génne certificat nationalité français mm-hmm. te loolu saraxu ko def. loo doonul sëriñam loo doonul taalibam nag mënoo doon sëriñam. dëgg nga wax ji mm-hmm. lii dafa am yoon bu koy liggéey ci wàllu ubbeeku. parce que doomu aadama yi soxla nañ ubbeeku ndax nit ñi sonn nañ koo gis ma ngay jàmbat koo gis ma ngay jàmbat koo am lam doy liggéey lam am ci liggéeyam la muy fayeeku doyu ko ba sañoon am leen lu ko raw ndax la mu yenu ci sars la muy fayeeku mënu ko wala la mu yor ci entreprise wala société mënu ko ndax àdduna sépp yaakaar ci moom bu doon koo xam ne maanaam la ngay am da doy sa waajur ak sa njaboot rek doy na da nga mën a dund da nga bëgg dundee waaye képp koo xam ne gis na yaakaaru rek dan la yaakaar tax lii ay sadaxaat la yoo xam ne dañ koy def ci géej maanaam dafa am benn sangat boo xam ne dañ koy liggéey boo xam ne juróom-ñaari duusi géej lañ koy liggéey waaye balaa ñu ko liggéey dañuy jël ñebbe ji gis nga ñetti mbuus ñebbe la ñetti kilo ñebbe yu xonk ñebbe am na bu ñuul am na bu weex am na bu xonk bu xonk bi lañu jël sarax ko géej ñu ngi ko saraxee jël ci euh, ndox moom juróom-ñaari duusi géej mooy juróom-ñaari vague doo ko boole nag saafara gi ñu koy euh, liggéey li ñu liggéey def ko ci. dégg nga mu doog a ànd ak parfum yi muy àndal ak xaalis yi muy àndal. Mm-hmm. loolu nit du ko sangoo mukk ci at bi. Mm-hmm. te ubbeeku ubbeeku bu la yem. Mm-hmm. loolu moo ko tax a jóg. waaw ah. bu dee sarax nag. bari na ay façon damay wax ne sarax dafay wuñu njàqare. di far merug yàlla. di waral yombal jéggi saraat. yàlla tegoon jàngoro nit mu tegg ko ngir sarax. dégg nga. loolu sarax dana koy def. yonent bi yàgg naa ko fee wax fii. yor na fi ab jaamam Aysa yor na ab jaamam mu ne ko yeewi ko ndax sama borom nee na kii dafa bokk ci ñe sawar bi mu ko yeewee jaam bi bi muy dem ci la gis kuy yalwaan mu sarax ko ab tàndarma bi mu ko saraxee Jibril ñëwaat ci yonent bi ne ko waxal sa jaam bi mu delluwaat ci kër gi ndax bis ngi te yàlla goreel na ko boole ko ñooñu àjjana sarax ko waral xis sa Yuusufa bi ku ne dégg na ko sarax ko gindi moo gindi yàqu baayam dégg nga ba mu feeñaat mhm. demet demet demet demet demet demet mhm. dégg nga wax ji. man nit feebar na fi ñu ne ko tes jours sont comptés. Mhm. ki may wax cousin wu Serigne Ndiaye buuna la man li ma may lépp lu may dafa leer. Mhm. yaa ngi dégg. ba ma xoolee sarax génn benn butéel laa ko jox boo xam ne ndoxu taw lañ ci def ma fanaanoo ko. def ci li ma ciy def ci dog. Mhm. ba ma ko defee jox li ma koy jox wax nañu génne sarax nangam ñu génne ko. bañ ko génne yàlla yëkkati ko. kon sarax lu mu amut. ci kaw nga xam ko. Euh, ñu ñëw ci ndomba dama gis ndomba yam ndombay cosaan la nga yàgg koo liggéey euh, ku mas a ñëw ci kër gi wala yàgg ñëw ci kër gi xam nga ne ndomba yi liñ ko fi jël si sax mu ëpp liñ fi jël si yeneen ndomba yi lan ak lan lay def. waa ndomba yi jamono ji dafa doy waar alaaji dégg hmm. jamono ji yàqu na yàqu boo xam ne surtout Sénégal bi ñu nekk. Hmm. liggéeyante yi bëri na yàqante yi bëri na nit ñi yéen diwuñ jàmm da ngay nekk sa poste boo xam ne sa mérite la hmm. yaa jàng ba egg ci ci niveau boobu yàlla war la ko am koo xam ne taxaw fee ne loolu du fa amee. am keneen koo xam ne sa mbokk la moom dafa mënut a jotee ci yow rek waaye moom moom lii moom du ko seetaan. du ko seetaan nga fi amee ndam wala du ko fi seetaan nga fi buuma ko buumi. def la liggéey yàqal la ba la nga doon jëriñ sa askan wala jëriñ ko say mbokk wala jëriñ ko sa njaboot. doo ko mënati. gis nañ ko fi gis nañ ko ci société gis nañ ko ci entreprise yi gis nañ ko fu ne. nit ñi ngi tëkkoonte tout le man li bii ndomb la boo xam ne képp koo xam ne def na la liggéey dana dellu fa mu la liggéeyee faju ji ndob bi loolu ko tax a jóg képp koo xam ne def na la liggéey dana dellu fa mu la liggéey woon faju ji laa wax kii képp koo xam ne waaw bëgg nga kaaraange mhm. kaarange boo xam ne danga mucc ci police mucc ci accident mucc mhm. ndog mucc ci mhm. gàllankoor àdduna mucc ci pexem noonu moom moo ko tax a jóg gis nga saabu yii ay saabu la yoo xam ne ñu sàngee néew la. dafa am nuñ koy liggéey nit ñi dañuy ñëw fetal la sax xam nga fetal. waaw saytaane dana soppaliku doon nit. ñëw fekk la fi nga nekk. nga yori gàllaj wala am noomel ñu fetal la def la loo xam ne sànni la ngelaw. mu dugg ci yow foo dem duñ la mën a faj. moom lañ koy liggéeyee. dañ koy liggéey ci ay puso. ak ci morso muuma wala morso morso gumba moom lañ koy liggéeyee soit da nga koy takk wala nga def ko sa poche wala nga def ko fi ngay nekk seytaan du fa am accès mukk dégg nga wax ji hmm. nit di ku set du la mën a jege mukk ba di la fetal uh-huh. waaw euh, sëñ bi euh, mu am loo xamante ni euh, ñaq la waaye cangaay la loo xam da koy def ci enveloppe di ko yónnee nit ñi mais loolu bu ko nit tekkee ba xooj ko sangoo ko na jàpp ne ak dundam dootu ci ñàkk. ca ngaayalu wërsëg boobu tey bëgg naa nga ñëw ci loolu nag njafaan loolu moom laa wax ci moom la ñuy liggéey ci ci ñebe. na bii dama koy joxe nii. lii la ma war a àndal. a ko jox laa koy wax ne lii ak lii ak lii ak lii moo ci dem. njafaan lii doo ko laal mukk mën kii boo koy laal mën na dem ren ba déwén. masalan nga liggéey nga tàmbale ko tey tey jii ba déwén ci waxtu wi mën nga dem ak moom di ko liggéey njafaan li doo ko laal mukk te ama ubbeeku amut waaw ñu waxtaanee nopp ban nopp moo gën a gaaw ci fexe ba ku góor bëgg ko jigéen wala ku jigéen bëgg ko góor waa nopp dafa bari façon damay wax ne toujours ma ne nopp am na boo xam ne noobu jëkkër ak jabar la am na nopp boo xam ne way de maanaam ko xam ne am nga yéene mu doon sa soxna wala mu doon sa jëkkër nga bëgg mu nga bëgg koo téye pour la ngeen waxante ci kàddu du dañ am na nopp boo xam ne tey ji la ngay njëkk a may ndaw si ci laa koy ko ci tuflee loo ko jox ba ba nga ko joxe ngoro boobu du dagg mukk am na loo xam ne ko joxee nga sangoo kii ngoro boobu du am na nopp boo xam ne way dencante ñu ngi sëy woñ ci kër gi mënuñoo jiboo maa def loo xam ne dafay neexal sëy bi mooy lu ma lay jox loo xam ne da koy raxasoo la dégg nga wala loo xam ne da ko téere lay doon nga def ko sa kanam benn bi da koy def ci naaj maanaam foo xam ne jant dafay fenk mu tàng bu tàngee nga oo ko def ko sa bopp sa téere bopp am na ji na ci far lañ koy takk am na boo xam ne sa kanam ba pare da koy génne aw ko boo ko awee nga nga takk ko sa kanam sa mu féetee sa nga dóor ko uhuh. kooku amul benn jëkkër jooy am mu woon la ginnaaw te jox la bopp mun ta nekk. mënul nekk. looy waaw amul benn góor boo xam ne danga nga ko jox da ko da ko jëfee yaa ngi dëgg te kooku du la jox bopp. moo xam bi ñuy takk ci fer bi moo xam bi ñuy takk ci bopp bi moo xam bi ñuy takk ci ci ci ci ndigli mhm. amut am na ci beneen boo xam ne ci ndawal la mës naa ko fi wane. Mhm. ndawal lañ koy def. boobu mën naa jàpp ku ne mën naa jàpp tubaab mën naa jàpp ni ku weex mën naa jàpp ni ku ñuul. Mhm. ndawal ngay jël bu dee góor nga def ko sa kanam fanaan ak moom sol tubéy mhm. bu dee jigéen kasaalik nga dugal ko sa kanam fanaan ak moom mhm. xëyee nga dëbb ko ba mu noon nga weer ko boo ko weer ba moom nga dëbb ko ba mu mokk mu mokki nga boole ko bi def ko ci lu naan wala lu mu lekk kooku mi def mënatu leen tàqale kooku sama baay jox na ko benn kilifa ku mag fii yaa ngi dégg yàlla na ko yàlla yërëm cinq cent mille francs la ko joxee sirru bi waaw waaw loolu daal xam nañ ko ci nopp ana suuf bi nga xamante da ne ma loolu ku ko laal rek da nga yëngatu ku ko laal nooy def. koddal mu ngi nii. laal koddal bi yàgg naa ko fi wone yaakaar naa musu musu bi ma ko fi wone musoo leen dégg ko leen wax ne leen sëñ bi kat garab bi ba ma ko joxee kat la ma waxoon dara amu ci. Mhm. mosul leen ko dégg yaakaar naa dégg nga mm-hmm. bañ ko fi defee it yaakaar naa kër gi rek fees na dal mm-hmm. te ñi fi ñëw ñëpp lii leen fi ndax genn wàll nit ñëpp dañoo paan ndax façon lekk yi nga xam ne dañ koy lekk ak xeeti yi nga xam ne jàpp na nit ñi mm-hmm. ak liggéey yu bon yi ndax da ngay takk sa jabar takkal ko wujj mu ne du fi amee kii boo demee ci moom paan kii boo demee ci moom doxle dégg nga ak ñi nga xam ne njaaloo guddi njaaloo bëccëg ci lañ fi nekkee am ñoo xam balaa ñoo takk jabar njaaloo nañ ba ba ba ba ba xomaat doo a ñëw bëgg bëgg bëgg a jëli soxna. Mhm. dégg nga képp koo xam ne laal nga ko. danga nga jugal am naa ci boo xam ne ma nga fële. mu weñu sàll bi. Mhm. képp koo xam ne bëgg nga su dund doo yomb. Mhm. ilaa yow mi doo yomb. billaahi wallaahi taala bu ma la ko joxee bind ci lañ ciy def tàngal ko ba mu sooy nga saw maa la garanti du ndooyam ba keroog ngay fàttu. am gàllaaj yoo xam ne da nga koy jox euh, suñu yaay waaye suñu wayjur yi ñu koy takkal seen doom yi lu mel ne ay téere tànk lu mel ne téere baat lu mel ne téere bopp gàllaaj yooyu tamit gàllaaj cosaan la yoo xamante ni ci sa wayjur ba nga ko jëlee woon waaye tey yaa ngi jox xale yu toll ci fer ak ñi nga xamante ni dañoo amagul 18 ans ngir xale lu ko aar euh, dafa am solo. waaw xale ko aar dafa solo. dégg boo gisee yenn jikko yi ak yenn xeetu doomu aadama yi ak yeneen xeetu dund yi nga xam ne xale yi nga koy dund léegi. bu njëkk amutoon ndax mag ñi dañ daan jug seen doom mm-hmm. ba seen doom laata moo juddu. Mm-hmm. lañ ci def ay wëtal ay ya ca aju. Mm-hmm. bu ju juddoo ñu defal ko toqantal buñ ci jugee buñ ci jugee. jël ay gàllaaj yoo xam ne di ko di ko ràng ak di ko nandal pour mu jub pour mu baax pour mu aw yoon. pour mu doon xale boo xam ne bu màggee du doon koo xam ne dafay teg gàcc. day doon koo xam ne day teg siraatul muslim day doon koo xam ne ci ndawam seytaane du am ci moom yoon. dégg nga jinne choyati ni duñ ko mën a pénétrer loolu nit ñi dañ koo bàyyi léegi da gis ko ëmb ba ca ba cay ba ca nopp ya amul benn téere boo xam da koy takk ay jumbax lay sol wala def mëlëfam nen na ci mbedd bi di talax talaxi kooku boo juree doomi bandi wala doomi caga wala doomi njaalookat wala doomi ñiy saagante ndey ci internet bi kooku yaa ko yóbbee sa bopp mhm. dégg nga yooyu am na fi am na ci xànjar boo xam dañ koy jox xale bisu àjjuma lañ koy liggéey mhm. amul xale buñ koy jox te turam duñ ko dégg ci kaw tey du màgg ba ba doon ba doon waxambaane du deewee ci ndawam mukk boobu dañ koy joxe am na ci bu dee gone yi am na jàllale jàllale nag dafa bëri façon ñun biñ ci joxe xam nañ ko bu baax wóoluñ ko te lu wér la cosaan la loo xam ne dañ koo jële doon suñuy maam ñu ko ne di ko di ko jox nit ñi dégg nga am na ci gàlla joo xam ne gàlla ju téeru tànk yi wax naa ko waxati ko saa su ne ma ko saa su ne nit ñi laaj ma ko li tax ma koy génnee njëriñ loo xam ne dafa am njëriñ. amal njëriñ askan wi rawatina ñi ëpp ci nit ñi ñi ko jàmbat. Mhm. da nga leen di koy exposé wan leen ko xamal leen ne lii kat képp koo xam ne yaa ngi ci barab. Mhm. bañ noonu sonal la fa. teg ko say ñaari tànk. Mhm. noonu bu la fa sonal dana abal foofu. dégg nga wax te it foo nekk sa tur dafa yëkkatiku te it seetaan du la mën a dugg. mooy ñaari teer tànk yi mooy yi ñu ëwee dara bukki. moo moo nekk moo nekk nii uh-huh. lii bu fekkee nanga nga bañ sa soxna dem. waaw bu ma la ko joxee naa la nan nga koy defee ba du dem. Mm-hmm. waaw moo nekk noonu. Mm-hmm. Euh, ñu jëm ci làmb joo xamante ni damay wax naan wuri woo dem na ki nga waxe mag dem na dañ tàlli faaw jël am euh, mën nañ ne ay rek moo def ci diggante Sa Thiès ak ñaari mbër yi tey bu nga seetaanee open press yi bu ñu doon wax ki ci yëpp gàllaatee kan ngay joxoñ waaw xam nga affaire làmb affaire jinne la. Mm-hmm. tey man dama waxoon ne làmb doon nu ma ci wax ndax. man dama doon koo xam ne yaakaar naa bu dee preuve barki dee moo jaay jumaay fay mii la ma jox doy na preuve ndax man lépp lu ma damay garanti bokk ma sëriñ ci làmbatu man damay wax wax mu leer nañ ne la nii ak nii dana demee nii lii may wax la engagé yaa ngi dégg ngir li may bañ ëllëg mooy ku man ne yaa fi waxoon li wala nangam. combat bi nag. waaw la boo xam ne combat mystique la. combat la. fraction de seconde ku ko ci def rek. am nga pertement ndax làmb nit dina indi ndam. ci biir géew gi. mu leer mu leer sëriñ si xool gis ne mu leer nañ. ñu dem ba ci biir ñu dëppal ñu na ñoo xam ne fa lañ mënee. te loolu boo watul rek dana ci am. surprise bu mag dana ci génn. bu rëy am seen wala ci côté Sa ci ñoom ñaar dina ci am ku ci def loo xam ne da ne ah lii de moo waral nangam. wala lii de xaaruñ ko woon wala lii fooguñ ko woon dégg nga wax ji gis euh, barki de mojaay Modou Lo combat mu mujj bi wala ñaari combat yi gis nga am na suuf soo xam ne moom lay diwoo. kañ la koy diwoo. waaw bu euh, moo ci des. merci beaucoup. Mm-hmm. loolu dafa doon mbir boo xam ne dañ koy utee suuf soo xam ne jant du ko ci biir géej. Mm-hmm. fa la ñuy utee suuf soosu. Mm-hmm. ci booru géej ñu gas ba ca suufa suuf. suuf soosu ñu jël ko. wala ñu jël si suufu suuf. suuf bu mën a doon. buñ gasee ba ci suuf. ndax suuf saa booy gas. da nga gis couleur yi dañu uute. la ci suuf nag amul sobe. moom la ñu jël am nañ ko kaas yi jox la ko nga dàq lool boo ko daaxee sa yaram lépp loo xam ne defoon na la ko wala jàppoon na la ko muy takk ak lu mën a doon day dañ fa saasa. kon loolu it yu mat a bàyyi xel la ci buñ ko gisee. waaw. dëgg la. Mhm. ñu bàyyi nga tàggatoo mbokk yi lay suivre ci MPROD TV. waaw balaa maa tàggatoo dinaa wax sama jaaro bi. nga xam ne jaaro la boo xam ne mosuma ko wane mos naa fi wone façon jaaro bu ne. Mhm. waaye bii mosuma ko wane képp koo xam ne. yaa ngi yëngatu di business. Mhm. wala bëgg sa mbir dem kaw. waaw wala ngay bëgg di woomal foo toll. fexeel nga am jaaro bi. jaaro bi Alaaji Medoune. jaaro bu yéeme yéeme la. boo koy liggéey. waaw dafay am sadaxaat. force da ngay tuur deret. Mm-hmm. nga génne ko juróom-ñaari saam nga sarax ko. waaw boo ko saraxee buñ ko liggéey ba liggéey ci liñ ci liñ ci liggéey ba pare. Mm-hmm. deru golo bi moo ci nekk. ci biir encore. nga doog ko takk fii ren di woo doo ko takk. maa ngi lay waatal ci yàlla. Mm-hmm. jaaro bi doo ko takk ren ba déwén te gisoo yokkute bu la yéem. bu amul ñëwal delloo ma jaaro bi. ma delloo la ma joxoon. leer nañ waaw loolu leer na. dégg wàññi. ak i comme jamono ji dañoo nekk ci nit ñi chaque jour dañ may jàmbal mbiru poste. waaw bëgg naa ku ma fal poste bi wala poste bi maa ngi fa nekk bëgg ku ma fa fal. Mhm. am na ci loo xam ne gàllaaj boo xam ne dañ koy liggéey ci tànk. Mhm. ci kaw fas lañ koy liggéey fas bu xonk. Mhm. buñ ko bindee ci kaw fas bi takkal la ko boo fi nekkul ñu takkal ko xale buñ ko takkee xale. buñ ko tekkee mën la ko jox nga doog ko jëfandikoo mu jëriñ la. Mm-hmm. amul kenn koo xam nekk ci place bi dafa xëccoo. te joxuñ la ko. te defuñ la loolu. te te jotoo ci amut. Mm-hmm. waaw. ñooñu ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokki MPROD TV. ah xanaa di gërëm di leen sant di ñaan yàlla yàlla na fi yàlla saxal jàmm. Mm-hmm. yàlla muccal ñu dolli fi sutura. te nit ñi ñu delloo si seen xel yi. fen yi bari na lool. jamono ji alañ bi fen yi bëri na trop. rawatina suñu mbokk sëriñ si. damaa mës toog kilifa di xalifa borom Daaru Muxti yàlla na fi yàgg loolu tàndikoon mu ne suñu bés anta ñu bokk añ. noppi bisu àjjuma loolu ndeysaan du ko fàtte mukk am góor gu fa wax lu xorom. ci benn wax jaruma ci jaar. mu am kum tudd kilifa gum tudd ne kilifa sangam mooy kilifaam. am benn doomam bu ko laaj ne ko sëñ bi ndax loolu wér na. sëñ ne ko ah xaw ma ndax wér naa am waaye maa ngi wax la carno wax la waaj la sëñ Tuubaa waxoon waaja jugoon daaru musi daa am waajoo xam ma sa jóge daaru ñëw fekk sëñ Tuubaa njaarim ko ne ko sëñ bi carno nuyu na la mhm. nee na sëñ bi tàng jër ne ko ndax carno la ko ndax sëñ Tuubaa xam ne carno bu koy nuyu nan koy nuyu du yóbbante ay sàmba sugum ngay ñëw naan ko diw nuyu na mhm. bi da ko ne ko ndax carno nuyu na la rek nee na waaja tiit ci saasa ne ko ñu ngi lu mbàkk liñ fa jógee tax mhm. sëñ Tuubaa tafkaala tàng jër ne ko ne ko ndeke day lu ndaw rek da ngeen jox lu dëgg. kon nit ki lépp looy wax. Mm-hmm. na nga ci seere sa diggante ak sa borom. ay diw euh, dañ koo kort ak dañ koo sànni nangam ak feebar ñëpp koy def. Mm-hmm. dëgg la naam dañ sànni dañ sànni nit ñi kort. Mm-hmm. ay sabab dana am. waaye nit bu demee ba faatu ba dee. xam nga lan la. jàngal ko fukki la xalaas ak benn. wala ñaar wala ñeent fukki la xalaas ak benn. ci boo ko mënee. wala doog boo mën ñàngal ko ñaanal ko yàlla yàlla jéggal ko xare ko àjjana mhm. moog ñam fa fekk mhm. loolay farata waaye bàyyi ba jaan romb la nga topp ci watit way daw loolu ku koy def xam nga ne yaa ngi ci tappale mhm. wasalaam mbokki tey dégg ngeen waxtaan wu am solo wi nga xamante ni Serigne Souhaïbou Mané la marabu soosé waxtaan na ko tey mu nekkoon waxtaan wu am solo nekkoon waxtaan wu am njariñ ñu doon ko seq ak moom ngir eh, laabiré jaam ñi rawatina eh, lii xew ci combat yi mbokki numéro yaa ngi doon képp ku ko ci woo rek di nga ko jot yéen ñi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci darajey Muhammad Rasulullah